yaa nii da ngaa wut. doomu xaraaf doomu xaraaf. yow sama tey eh, bëggee ay rek maa fu ma neex lay dem ndayam laa la wax maay filmé ba ca yax ya circulation bi yëpp laay filmé ku fi taxaw ma filmé la yow laay filmé ba xam loo ma mënal awaña qu'est-ce que tu veux kan. yow pankoo sax maa yow département de Pikine yow pankoo sax ngay wax man maa moom sama bopp su ma neexee filmé sama film sama oto ngi nii sa oto ngi noonu yéegal yaay sama jarbaat waaye di nga dégg li nga def dinaa ko wax de dangaa voté sa morom voté ku bàyyiwul sa baay doo sa baay doo bàyyi keneen moo mën borom panam ñoom waxoon nañ ko de laay bu ko nduuree dee am gàcce de bu ko nduuree ñoom ñëpp ñu am gàcce ay tax ñu waaw